RFM Matin. RFM Matin. Émission bi au Sénégal. RFM Matin 7h40 sunu gan Ousmane Thiam alaikum. Alaykoum salam, salam. Babacar. ñu sommes lay dalal député nga député PDS euh, waaye qui ci euh, liste Wallu, ci élection Falou député yi fi mujj nga bokk kon groupe parlementaire Walou. ci assemblée euh, nationale bokk ci comité directeur PDS parti démocratique sénégalais parti Laïwad, avec ak bu euh, nga jité commission communication wala bokk nga bokk ci commission communication bu parti bobu di euh, PDS jité réseau parlementaire des personnes handicapées euh, président commission affaires juridiques bu conseil départemental bu Kébémer bala ñoo wax politique Kébémer googu amna na ay yu bawo fofu di jël gal di jema dem tugalam am. waaw amna fa de amna fa mbëkk mi mom amna Kébémer comme ni mu amee ci ci goxu Sénégal gi yépp waaye loolu moom lu ñu lu xale yi war a teg ci teg ci suuf la ndax géej moom amul amul bànqaas euh, te itam wax dëgg fa yàlla euh, bëgg ëllëg bu jekk dund da ko da ko da ko gën. Hmm, Kébémer am na daram ba gone yi war a toog foofa. waa Kébémer de wax dëgg fa yàlla am na dara ndax euh, maire bi fa nekk ma koy nuyu au passage. muy le président du groupe parlementaire Mamadou Lamine Thiam ma ngay gorlu ci dëkk ba ci ci ci lañ ko denk di ci def ay jéego yoo xam ne waa dëkk bi ñu ngi ci sentir seen bopp ñu ngi koy nuyu di nuyu équipe municipale bi ko bi ko accompagne yépp di nuyu aussi askanu maire gi ña fay ña may teewlu jamono ji yëpp nekk biir maire Lompoul soriwul Kébémer te ñu xam ne zone de départ yi bëri nañ ay Kafountine ak ay euh, Thiaroye ak yeneen i. Fass Boye ñoom seen Fass ak est-ce que euh, yéen a ngi prêter attention ca Lompoul ndax ab zone de départ la am déet. nak Lompoul euh, bi bi bi vague bi commencer ak léegi déggaguñ fa départ c'est vrai que face boy euh, sori wuñu tuuti waaye Lompoul déggaguñ fa départ mais départ yi am yëpp am na lu ñu ay suñu ay doom yu yu dëkk biir Mbawor yoo xam ne ñàkk nañ fa seen i seen i seen i bakken ñu ngi leen di jaale man demoon naa ci dëkk dëkk boobu nga xam ne jokkul soriwul dara Kébémer mi ngi à treize kilomètres de Kébémer jaale ji woon fa parce que man may député département Kébémer bi am na ay famille yoo xam ne seen i ay doom bokkoon nañ ci euh, gaal gi nga xam ne moom lañ mujjee woon repêché ca waaxu maro gi te doo ko comprendre daal parce que man dem naa fa jaale ji kër goo xam ne euh, xale bi ñu may wax ni dem na dem na ci gaal gi am na ñaari tool bàyyi na boutique am na njaboot am nga kooku daanaka bu toogoon li mu asa yor noonu bu toogoon xëy na mën na gën a. daa mel ni dégg nañ loolu de bàyyam di ca di ko di ko wax sax euh, mooy gaal gi toroon wakaama. voilà mu ngoog. mu ngoog man demoon naa eh, eh, foofu parce que ci sama gox la bokk ci maay député département bi demoon naa ba gis euh, foofu waaye daal xam naa ne xale yi war nañu mën a ressaisir. mais naka la ñuy mën a ressaisir bu ñu jëlee la cas de Lompoul am na euh, ab projet ba nga xamante ne moo fa nekkoon jëm ci wàllum transformation produit halieutique mais pratiquement projet boobu mu mujjewut a dox

politique du si ba nga xamante ni mo euh, moo moo euh, woon quai de pêche bobu ngay wax ak ak usine de de transformation bobu mais au-delà de de de géej gi lomp fofu dafa nekk les ñaay xam nga lolu nit ñi dañu amone les ñaay damay faral di wax ni Sénégal ben autosuffisance rek la am muy autosuffisance légumes te ñaay bi ci la légume bi yëpp jóge moo tax dañu war a renforcer culture maraîchère bi dugal jox xale yi ay moyen xam nga xëyu xale yi xëyu ndaw yeeg yooyu c'est bien beau ñu def ay. lu tax ba ngeen ca newee defu leen ko ba Laye Wade nekkee président lu ne jëm ngeen ko Laye Wade ak Macky moom seen politique jëme ci ndaw ji moom laaj lajj weesu ko ab du Diouf ak Senghor moom waxuma seen i wax waaye. mu ngi noonu daal euh, gone yi ngeen bàyyi noonu rek ñi rek naan nangam am na def naa quai de pêche a un projet nangam projet wad ak FNPJ ak qui, xamul ay Qui ban dara. xam léegi mbirum gone yi wul xam nga ablay wad mom limu def ci Sénégal nit munu ko nit munu ko xam nga na fi est moy weddi gis xam nga Wade restaurer la la fierté de la jeunesse africaine waxuma sax Sénégal mais jeunesse africaine restaurer fierté gis politique fi continuer suivre retour à l'agriculture, agriculture à Areva buñ ko suivre bu euh, administration continuité la waroon nekk. plan Reva équipe bi nga xam ne ñoom ñoo ñuy wutu bu ñu continuer woon équipe euh, politique de jeunesse boobu ñu defoon xëy na amélioration yi dina ëpp nii mu nekkee dañ Babacar mais euh, goona googee gis nañ ay naxem waaye ca nekkoon ndax bi ñuy exposé yu mel ni fii ay ay ay ay kaani plastique lañu fi tegoon non loolu xam nga lancement bokkul la mënoo looy dooy def journée de lancement kay da naan da naan réew mi fii lañ leen jëmee fii lañ leen jëmee mooy xeetu kaani yu mel nii xeetu ndugg mu mel nii fii lañ leen jëmee loolu c'était pour wane nit ñi ne kat réew mi fii la toll mais ñun plan bii ñuy lancé tey fii la ñu leen jëmee. yéen 2012 ñu wàccee leen ndax ndax tële ngeen bëgg a laajaat réew mi 2024 vraiment yéen tamit kenn du yéen. waa mais xam nga xam nga euh, ñun ñëpp dégg fekkoon nañ fi 2012. slogan bi gënoon a yaatu moy non au troisième mandat ken du euh, monétaliser dëkk bi mais Ablaye Wade nous sommes tous d'accord que ken attaqué wu ko ci ci bina ndax wax deug fa yalla biñ fi lancer autoroute bi autoroute à péage bi dem ci yalla Ousmane Tanor duma du ma mukk phrase am boobu daf ni won c'est des éléphants blancs tay ñun ñep giseel nañ suñu bopp euh, bi ñuy jël le pouvoir en 2000 fi benn voie la woon corniche bi benn voie la won amélioration réew mi les routes du développement bañ doon wax. Karim Wade gas su Mbédioune def tunnel def ci huit milliards tunnel bu mënono ñak waron def pont rek ñu jall jëm euh, dox. non non euh, yàq xaalis yéen waa PDS yak khalis xam nga bo dee bo dee tukki ci aduna bi da ngay gis ni euh, Karim Wade ak Abdoulaye Wade c'est des visionnaires. parce que bo gisee tay réew mi ni muy développer xol xal yi ñu xaat xaat ko ci biir manam autoroute bi ni maliksi Sy bi mu dem ba jam ñaajo génn noonu dem Ila Touba et je rappelle que loolu yëpp ay projet wu président Wade la. Ah, Ila Touba nag du seen jos. Ah, Babacar xam nga kooku Macky xam nga Babacar le 11 octobre 2022 fii laa toogoon ci sa plateau ma ne la ci ci ci 12 ans ma ne la ci trois ans defar fi projet def fi recherche de financement lancé travaux yi ba inauguré ko xaju fi liggéey bo fi fekk la lolou de 11 11 octobre 2000 2022 ci la ko waxee won fi ci sa drapeau bu fekkee yaa ngi mais mom def na la nga xamantene na ci premier mandat te yeen seen premier mandat danaka projet la won deuxième mandat bi lañ commencé gis ay inauguration wa non xam nga nak suñu premier mandat bu ñu nekkee dans l'opposition pendant 26 ans. gagné ay élection ba tàyyi nag ñu foqati ko bu ñu ñëwee ci nguur gi dafa am cëslaay bu ñuy teg pour mën a contour pour mën a téye le pouvoir da ngeen doon defaru kay ba ñu xasee ba téye le pouvoir nag aha ci lañ daal di doxal nag waaw moom da ngeen defaroo ba noppi Sénégal amul kenn kuy naataaba leen ni ah ci régime PDS ci la décollage bii ñu am ci Sénégal. Idriss Seck nee na da ngeen a falu rek laay wàddu woo ko ne ko sunu problème xaalis yëpp jeex na boobu mi ngi tiim kees gi wax xam nga xam nga loolu xëy na Idriss Seck maa ngi koy man le président Idriss Seck maa ngi koy nuyu mais xam nga loolu ak pouvoir ñoo ànd. pouvoir moom ah. pouvoir moom ku ci xas ba àgg egsi moom wax dëgg fa yàlla jafe-jafe ñu xaalis da lay wàcc parce que dañ lay mettre dans des conditions de travail te bi ñu sénégalais yi mettre dans des conditions de travail on a travaillé pour le peuple. léegi euh, élection yi nañ ci jëm. Euh, Euh, baal nañ leen Macky Sall woon na leen dialogue ngeen waxtaanee euh, nu Karim di bokkee xalifa sàll ba ngeen déggoo ci dialogue bi assemblée nationale jëmmal ko euh, soppi code électoral bu ko defee Karim ak Khalifa bu nu bëggee bokk déwén normalement du am jafe-jafe waaye seen moroom député opposition rawatina waa yi surtout Pastef nañ du ci dal bu yóbbu nañ kalaamee loi boobu ci benn ëttu attekaay ci réew mi nu ngeen ko gisee recours boobu nga xam ni waa Yewwi def nañ ko.

révision de procès yeewi askan bi nak pour en revenir tay dañuy japp né li li ni ñun PDS xamoon nañ ko xam nga ñun PDS membre fondateur wu askan wi lañ bokk les quatre grands yang koy koy ku ñun ci lañ bokkoon. Mhm. mais liko indi won moy après ngeen génn dañu waaw génn bi parce que dañu dem bay bay signer charte bi ñu né waaw légui ku nekk si quatre grands yi. ñoom ñoo ñu ne noo quatre grands yi euh, day am daal maanaam sous couvert ñu ne waa Pastef ni dañuy àndaale mouvement bi nga xam ne ñoom ñoo gunge woon Ousmane Sonko bi mu amee jafañ-jafañ Karim Wade ne non il n'en est pas question Abdoulaye ne non duñ ci def loolu moo andi suñu génn ci yeewi askan wi léegi nag loolu ñun ñu gisoon ba koy bañ tey loolu moo dab suñu mbokk waa taxawu Sénégal yi parce que boobu ñoom ñi ngi ànd ak kon li ngeen seenoon ñi ngi waaw lii lañ gisoon ba ñun taxaw ni ñun duñu bokk yeewi askan wi ci yii condition yi ñu ciy bokk mooy ñëppay doon parti parti bu taxaw amul damay ñëw àndaale ak samay mbokk parce que su boobaa ñun PDS mënoon nañoo ñëw ak mouvement karimiste yëpp loolu moo andi woon ñu génn yeewi askan wi ñu saaga ñu xas ñu way dañuy liggéeyal Macky Sall nangam nangam tey histoire jox nañu raison tey histoire jox na raison le secrétaire général de parti président Abdoulaye Wade tey euh, histoire jox na raison notre candidat Karim Meïssa Wade léegi nag pour revenir ci recours u yeewi askan wi xam nga recours bi man dama gis ne euh, weddi sa bopp la parce que yow boo taxawee nga ne ñun suñu suñu suñu xeex mooy na ñëpp bokk na Karim bokk na xalifa bokk ñu dem ba loolu ñu koy jëmmal yow yamoo ci ci ci ci accompagner ko mais ba vote ba jotee dangaa dugal ay recours recours boobu may fàttali ne assemblée nationale euh, euh, règlement intérieur bi moo may gouvernement bi bu ñu ñëwee assemblée nationale ñu laajte loo xam ne bu ñu àndee seen projet de loi buñ ci bëggee indi amendement règlement intérieur bi moo leen may ñu ne leen kat.

Karim Wade parce que il n'est pas concerné mais le PDS day assumer posture ci dialogue le PDS day assumé day assumer dialogue parce que waxtan wi ñun dañ fa am luñu fa yobbu won luñu fa yobbu pendant 12 ans la révision de notre procès c'est acté kon ñun nous ni damay askan notamment une partie de askan wi bu ils sont logiques avec eux-mêmes recours bobu amul ndax bu fekkoon gëm nañ seen wax bi dañuy taxaw ne ah ñun kat ñoo. ñoom dañoo japp ne da ngeen a diil ak maki yéen ak ñoom Khalifa euh, sank Sonko ndax Sonko moom euh, ak bokkom wóoratul démb sax ci suñuy xibaar jot nañ euh, ay mbokkom jot nañ kayit yi wane ni rocc nañ ko ci fichier électoral bi mënatul woote ci réew mi te ku mënul woote doo mën a doon candidat loolu ñoom lu lañ jàpp da ngeen a dem diil ak maki ngir ñoom bàyyi fi Sonko ci ginnaaw. waa xam nga Babacar ma jox la benn exemple tey bu ñu bu ñu tegoon ci suñu table bii un million ñu ne ah un million bii kat pour ñu jot ko dañ ciy waxtaan ba jot ci man ak George ñu waxtaan ba téye un million yi yow nga taxaw fee balaa ñuy commencé waxtaan sax nga ne un million yi sàcc la escroquerie la corruption la deal la ñun ñu jot un yi ba téye yow nga génn nañu kat ah waa léegi kat un million yi comme téye ngeen ko sama wàll laaj yi laaj lu tax joxu leen ma ci sama wàll lu tax waxu leen ma ci sama wàll xam loolu moom kon yow sax yaa ñu gën a doon diir yow mi nga xam ne yaa ñu koy jiiñ xam nga ñun PDS dafa am ci logique bu ñu nekkoon mooy acté suñu candidature fexe ba Karim Wade ñëw bokk ci yëf yi jël yëf yi parce que nous nous pensons que nous avons le meilleur candidat nous pensons que nous avons le meilleur profil pour être le président de la République du Sénégal en 2024 mais euh, yéen yéen a ngi doon xeex ñoom euh, bi ngeen pour ñëpp mais seulement on ne vous sent pas ci euh, xeexug na Sonko bokk loolu ñoom mën nañ leen kaa reprocher

du ñu dem élection su fekkee kaawu Karim Wade ak kaawu xalifa Sall réglé wul mais dañoo jékki-jékki rek gis ñi signé woon euh, chart boobu jékki-jékki génn di campagne ah, yamuñu sax am na si ñoo xam ne sax yamuñu ci ñoom ci campagne bi mais dañoo ñëw ci Ablaye Wade pour demander à ce que mu joxeel ko consigne de vote xam nga loolu dafay am sama benn maire boo xam ne ma nga kebe maire dafay faral di wax benn wax boo xam ni daf may daf may reetaan loo mooy bu sa baaxee looy ut ci candidature jàmbur ba cay xeex Mm. wax yu wolof la de. <laughs> waaw waaye yéen seen candidat itam bu léegi dafa tax suuf euh, saa yi kañ la kañ kañ la Karim di ñibbisi nag. non loolu moom. loolu moom suñu waxu biir néeg la Babacar xam nga. yow ni nga ko xamee non non leen waxu xibbi biir néeg ba ngeen bëgg a laaj réew mi bëgg a wax ak sénégalais yi. ba ñuy wax Karim day ñëw wala du ñëw. Babacar Karim dina ñëw xam nga buñ la exilé pendant six ans nga yor say bagage pendant. nañu waxante dëgg alamaanu 138 milliards bi nga xam ni mën nañ ko teg ba léegi te effacé wuñ ko loola rek mën na ko tere ñibbi si alamaan bi xam nga alamaan bi waxatuñ ko parce que révision de procès bu amee. révision de procès amagul. alamaan bi ba léegi wala bal na. c' est act c' est xanaa déggoo conclusion dialogue bi c' est la révision. bi amagul ñun ñun ñu woote waatul Karim taxaw ñu war ko raté waat. Babacar gis nga boo dee laajte boo dee seet euh, déclaration de candidature maa ngi dégg ñuy wax waxu quitus fiscale di dégg ñuy wax waxu ama amande mais xam nga yooyu bokkul ci yi dossier yi yi conseil constitutionnel di laaj. waxuñu loolu xam nga amande. wala Karim dafa bëgg doon candidat ba pare toog catalogue di xool ba xam day gañam du gañe. non Karim mi ngi ñëw Karim moom mi ngi ñëw. <laughs> anamu non mi ngi ñëw xam nga nag naka lay ñëwee. fan lay ñëwé loolu ñun ñoo koy def tey par exemple dama lay jox benn exemple suñu suñu section yi nga xam ne ci commune bi yëpp installé nañ ko démb rek le président le président maître Abdoulaye Wade secrétaire général du parti démocratique sénégalais génnee na benn circulaire pour wax ni nañu accélérer nañu accélérer mise en place su fédération wu kii xam nga loolu pour lan la hmm. pour dem ci congrès d' investiture bi kan la congrès bi kan lay investir notre candidat Karim Meïssa Wade et je rappelle que PDS am na ay kàngak mais depuis 2012 on lañu taxaw gëm benn projet gëm benn candidature muy Karim

ay casquette ak ay t-shirt ak ay banderole. xaalis moom war ngeen ko fu ngeen jëlee xaalis yéen. parce que parce parti bu organisé wu lañ. ba pare ñun dañoo gëm PDS. le don de soi. ana wootee Karim yi mu yónnee woon te nekk port génn na. yëpp a ngi fi bagage yi ñëw génn na oto yi ñëw génn na ñu ngi préparé wu accueillir en grande pompe notre candidat pour porter ko mu jëm. à la magistrature suprême te loolu defe naa ni euh, ñu ngi ciy woo ñëpp au premier rang euh, ñëpp ñi nga xam ne suñuy frère amatul bu kenn xool kenn parce que c'est une question de fraternité. léegi Karim bu ñu di campagne moom ci ban kàllaama lay campagne ñëpp ñibbi si ñaari kàllaama yëpp wolof ak français. non euh, Ousmane yow tamit ah ku la bàyyi. ah man de Babacar xanaa xamee woo ma wax lu ma xam li ma la mën a wax daal mooy Karim bu ñëwee di nga ko invité euh, RFM matin fii yéen ñaar ngeen ngeen seequ ko ci wolof. <laughs> man maa la jox sama man maa la jox boobu boobu information maa la jox boobu. exclusivité da ko xam ah.

def démb sax def na si benn communiqué nee na réew mi dina toll foo xam ne réduction des comptes moom dina am réduction des comptes. ku ñu yaakaar ngeen am jàpp ci waa Macky bu ngeen faloon. am na ñu ngeen war a mën a jàpp. ku ñu jox as alalu réew mi dinañ la saytu xool nu nga ko téye mais xam nga lan lan lañ dul def chasse aux sorcières loolu moom dañ koy tegee dee de côté parce que réew mi toll na foo xam ne mbooloo liggéey suñu gaal gi bàyyi ba ba xale yi bañ bañati yéeg ci gaal gi loolu moo xew ci réew mi. ani góor gi. góor gi mi ngi fii Sénégal mi ngi fii Sénégal mi ngi ci jàmm bu baax macha allah. mais ba léegi kenn gisu ko bi mu fi ñëwee boobu ba léegi moom daal ci ruqam la nekk. waaw parce que xam nga góor gi nag. stratège wax nga lépp góor gi ci ruxu bi. stratège la moom lii ñuy nekk di déroulé yëpp moom moo nekk ci ginnaaw te xam nga lum ñu wax rek. buñu ñu doxee rek histoire jox ko raison lepp lum ñu. wax këru point E gi mbaa jox joxaat nañ len ko euh, góor gi demu ci ba léegi lutax keur point E gi moom melni ni rek chantier bak euh, waaw xam nga xam nga góor gi chantier bi dafa am keur go keuru góor gi chantier bi mënut yombé yombee mais mi ngi ci en phase euh, de finition. le président Karim di dal bu wàccee le président Karim bu ñëwee fa lay dal. ah bon fa ñu déparé won jëm pale fa la ñuy déparé waat 2024 jëm pale incha allah. jërëjëf Ousmane Thiam député wàllu PDS jërëjëf Georges ñu ngi ziar Fatick. RFM matin RFM matin émission bii ñëwee Sénégal.